الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكي جلدي في التاو ñi fi dëkkul ak ñi fi dëkk. ñu ngi leen di jot li nuyoo suñu kilifa. muy sunu sëriñ. te baatam bàyyi nu fi gannaaw yàlla. muy Cheikh Mouhamadou Mountakha. ñu ngi leen di jot li nuyoom. kenn ku nekk ci yéen koo man di doon ak foo man di bàyyi koo ngay góor ngay jigéen sëriñ baa ngi di nuyu te di leen sant te di leen gërëm itam ci teewaay bi nga xam ne yéen a ko bokk ak moom di leen dollee gërëm ci toog gi ngeen fi toog ba waxtu wii sëriñ daam wax na ko léegi yaakaar naa dëkk bu doon gàmmoo biig bu ne boo fa demee waxtu wii doo fa fekk lu toll nii ci mbooloo kon loolu sëriñ baa santee yàlla mi nga xam ne. moo dogal mu jaboot ci ku yàlla may. ci ku yàlla may. ku yàlla gërëm. ku yàlla gërëm. fay. muy sëriñ Touba ak liggéeyu maam jaara sëriñ bi nee na. mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. lii nga xam ne bañ ko dalee bëgg yàgg na biñ fi dajee dajee it mu ngi bëgg ami at waaye alhamdulilah at mu ñëw mu gënal ko ma weesu woon ci ni mu demee ak ni mu taxawee ak pas-pas bi ak yitte ji ni ko magam ji Serigne Moustapha daan waxee rek mu di ne pencum jullit mu ne yeeyoon na biig ñu dajee fa màggal yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla na màggal fa juddug yonent bi sallallahu waaye penc mii nag moom moo ko gën a yeyooti te fii la gën a yellee ndax ki nga xam ne moom la ko yàlla fayee moom maam jaara di seyxul xadiim ñi meloon ci borom bis bii ak borom guddi gii kenn melu ci woon noonu. ci ak bëgg ak topp ak liggéeyal ko. képp ku xam doomu aadama. xam ne ku bari bëgg-bëgg la. te bëgg-bëgg yi. am na ci yoo xam ne am na ci sago waaye am na ci yoo xam ne amul ci sago. doomu aadama ku ko xam. doomu aadama ku ko xam. xam ni mel ci alal. xam aadama ku ko xam. ci doom. xam ni mel ci aadama ku ko ci dund. xam ni ak yi ne ci dund lépp. koo xam ne nag yow. yooyu yëpp. daa am lu la ko gënal. daa am lu la ko gënal. ba yooyu mel na ni amatul. ba yooyu mel na ni amatul. kon yàlla melal na la nu melalul kenn. def na la lum defalul kenn. te Serigne Touba noonu la meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wax nañ ni di fi Maamoor Anta Sali door jóge mu toll ci fanweeri at ak nangam rek la àggoon ci bëgg yonent bi la àggoon ci bëgg yonent bi paamu ci sago neenam yëpp neenam yëpp ak bëggam yëpp ak bëggam géntam yëpp مودون تكبت يونتبي صلى الله عليه وسلم فكي كو مدينه گم بغ گم تد نيان نكو باتاي بيم دمي با خامني لولو ويسونا بيم دغ سي لوخال توبا بي اغنا سي نه اغنا سي نه مون دي نياك دمو مكه مون دي نياك دمو مكه kersa la ci moom naqar la ci moom loolu ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fekk na booba sarti aj wàcc ko ndax moomul boppam moomul jëmmam ndax tubaab baa ngi ko téye ku ne xam ne itam ni mu ko waxee ne at mi yëpp. juróom-benn weer yi da ko daan tagg. juróom-benn weer yi da ko daa weer yi mu koy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon kooku. kon kooku. desaluloon dara. desaluloon dara. diggam bi sallallahu alayhi wa sallam. wa sallam. ni mu ko waxee ba tey. ni mu bi mu jógee. bi mu jógee. lool ci xër lool ci boromam. wuti boromam. wuti boromam. da ko ne. boromam da ko ne. agsi ci man teel na. agsi ci man teel na. daa am buntu bu jëm bu jëm si ci man. te boo fa jaarul doo yegsi ci man. buntu boobu mooy Seydina Muhammad. yàlla wan ko ko sallallahu alayhi wa mu topp ko di ko liggéeyal. ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa delloo ko yàlla yàlla boromam. daana wax ne. moom léppam. moom léppam. ak féppam. ak ñéppam. da joxe addiya Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa muy jëmmam ak ruwaam. mbindam ak xam-xamam. ay doomam ak léppam looloo tax ba mujj bëgg yonent bi moo doon yitteem bëgg yonent bi moo doon yitteem waaye dem na ba ne yonent bi moo ko bëggal boppam kon kooku kenn melul ni moom ci yonent bi kon buñ koy màggal foo xam ne fa la waajuram tëdd nii rek la mën a demee loolu moom la sëriñ bi wax. la ca desin nag moo di. nu fàttaliku. te gëna góor góorgóorlu. gën a bu baax. lu baax kat. du doy mukk. kenn mus ta gis. ku am lu baax ba ne doyal ku am lu baax ba ne doyal naa. ku am yiw ba ne doyal naa. kon nit ki. kon mu ngi dund. da koo war a sàkku da koo war a wut ndax àdduna kat feeg nit a ngi fi mën naa yàqule ndax ñi ñu gën fépp jaar nañ ci am na ci saalihuna ak yonent yoo xam ne jaar nañoo yàlla foo xam ne seen dund gépp dañ ko doon réccu kon nag war nanoo góorgóorlu bu baax. bi nu yàlla tegee ci yoon wi mu teg. bi nu yàlla tegee ci yoon wi mu teg. Ah, rawatina nag. rawatina nag. bu nu yàlla dimbalee. bu ba wàll gune. ba wàll wet gune. wet gune. am nañ ci royteef. am nañ ku ñuy topp. loolu moo tax ba. loolu moo tax ba. bi mu ngi fàttaliku. sëriñ bi nee na mu ngi fàttaliku. sëriñ daam wax na ko léegi. sëriñ wax na ko léegi. njëlbeenu penc mii. njëlbeenu ak njëlbeenu gàmm gi ci penc mii. nee na loolu du ci dellu si. waaye xam ngeen gàmm gi. ci penc mii. ñi ko njëkk a jox àqam ci. ci ni ko sëñ bi bëggee. bis bi ma jottilee. bis bi ma jottilee. bëgg ak ndigal ak ak ak misaru Serigne Moustapha. bëgg ak ndigal ak misaru xamal ko ne ko. gannaaw dëkk bi dañ koo bokk. sëñ bi boole nu. wax ne naa la fi joxub cër. def la mbokk. def la mbokk. def la wéttal. bokk daara. def la nu ànd bokk daara. di liggéeyal maam jaara lii day bëggub sëriñ bi la boo xam ne digal na ko waa dëkk bi digal na ko nun ñii te nu mel ne sëñ bi ni mu bëggee nu gaawee nii sëñ bi ni mu yoon woowa nun te wax na ma ne nag man ma ne li war ci gàmmu poroxaan li war ci gàmmu poroxaan su ngeen ko mënul. bàyyi leen fa ñëw njaarim fekk si ma ci man. leen fa ñëw njaarim fekk si ma ci man. ñu ànd jox jox jox bis bi lam lam yellool. yàlla def na ba ko sëriñ Modou déggee. ci la def yitteem yépp. def ci njabootam gi yépp. def ci kàttanam gépp. def ci bëggam gépp. ba fa lillaahi alhamdu mu agsi fii mu agsi tey jii pas-pasam boobu pas-pasam boobu ak jëfam googu ak jëfam googu soññi na dëkk bi soññi na dëkk bi ba tey jii ba tey jii xëy na ña ko fekke woon bëreetul de xëy na ña fekke woon bëreetul de waaye seeni doom waaye seeni doom ak seeni sët ak ñu ngi ca biir te kenn mënu leen ci ñu ngi ca biir te kenn mënu leen ci kon li sëñ bi bëggoon lépp kon li sëñ bi bëggoon lépp yàlla may يالا ماينا كوكو جارتي موم باكسي تي واد دك بي كون لول دونك فاتي با موك كون سيرن دام ناغا خامني اك سي كليفا اك سي كليفا دي وا كير سيرن دام سيك خامني ناغا خامني li serign modou nekkon li serign modou nekkon di defé ndigal لي ak leneen ndigal luñ sekk ak leneen ndigal luñ sekk dem dem na yóbbaale ngërëm. dem na yóbbaale ngërëm. waaye ñi mu fi bàyyi. waaye ñi mu fi bàyyi. lam bàyyi. lam bàyyi. dañ ko yokk waaye duñ ko wàññi. dañ ko yokk waaye duñ ko wàññi. suñ xel dal na ci ñoom lool. suñ xel dal na lool. suñ njort rafet na ci ñoom lool. suñu def suñ njort rafet na ci ñoom lool. yaakaar nañ ni yoon nañ ni yoon wi. ni yoon wii nu aw. buñ ko wàccul. lu mu bëggoon defal sëñ Touba. mu bëggoon a defal sëñ Touba. li ca des. li ca des. ko mott danañ ko mottali. kon loolu lañ leen di ñaanal bu baax. ci yàlla mi nga xam ne dara tëw ko. barke maam jaara moom fekki. barke maam jaara moom fekki. ngërëm lim jàpp ne am na ko. ngërëm lim jàpp ne am na ko. yàlla dajeeg moom foofee. yàlla lii mu bàyyi itam. lii mu bàyyi itam. barke bi lii feeñal na ko. nga xam ne barke bi lii feeñal na ko. yal na ko yàlla wattul boppam. mu àggale ko fa nga xam ne. mu àggale ko fa nga xam ne. bu fi nekkoon foofa la koy bëggee. bu fi nekkoon foofa la koy bëggee. kon ñu leen di sant bu baax. kon ñu ngi leen di sant bu baax. di leen xamal ne. barab bi. barab bi. taxawaay bi. taxawaay bi. ak jëf ji. ko mës a bëggee rek. ni ñu ko mës a bëggee rek. raw na fi ren jii. raw na fi ren jii. wàll yëpp ci wàll gépp nag. ñu sant sëriñ daam mu ngi leen di sant. sëriñ daam sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant. di sant njaboot di sant njaboot gi. di sant la waale yi nga xam ne. di sant suñu mbokki daara yi nga xam ne. xéewal ngeen indi fa man. xéewal yi ngeen indi fa man. yi ni mel yóbbu ngeen ko ni mel yóbbu nañ ko ca ñoom. kon nag jërë ngeen jëf. li ci des nag moo di. sant ak gërëm yàlla mi nga xam ne. moo def yéen ngeen di suñu njaboot. muy yéen daayira yi ne ci dëkk bi. moo xam fédération Sëñ Cheikh Astou Fall bi la. moo xam daayira yi ñu tudd yépp. daayira xidma ba nekk Ndakaaru. te doomi dëkk bi ne fa. te doomi dëkk bi ne fa. xam la leen war. xam la war. xam war a mel. xam nan war a mel. ñu nekkee ko foofee. ñu nekkee ko foofee. ba ku leen gis. xam na kat dëkku maam jaara leen dëkk. ñu boole ci. di dajale seen jëf. ñoom it bis bii ñu def ko seen bis. bu ñëwee. luñ man ak luñ manul ñu di ko def. ak mboolem daayira yi nga xam ne. ñu ngi ci dëkk bi. ñi bokk ci fédération bi. ak ñi ci bokkul. ak daayira yi nga xam ne. lim naa leen. te nekkuñ ci dëkk bi. ak kilifa yi nga xam ne. bokkuñ ci ay daayira. dëkkuñu fi. te tëj seeni kër. te tëj seeni kër. bàyyi seeni njaboot. bàyyi seeni njaboot. ànd ak ñun. ànd ak ñun. ci bis bi ak guddi gi. te jëmm yàlla rek tax. ak jëmmi borom bis bi ak maam jaara buso mi fi tëdd kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kenn ku ne beru na ma ak yow beru na yow seereel la sa jëf seereel la sant la gërëm la ñaanal la ñaanal ma ci dellu si yàlla seere na lépp xam na lépp te jàpp na lépp kenn ku nekk ci yéen kon nag jërë ngeen jëf. ñu ngi soññee bu baax nag. ñu ngi soññee bu baax nag. sëriñ daam wax na ko léegi. sëriñ daam wax na ko léegi. lii mu wax. noo ci bokk àtte. noo ci bokk àtte. kenn ku ndax kenn ku nekk ci ñun kat. la la war. la la moo di delloo njukkal sëriñ Touba. delloo njukkal sëriñ Touba nag. ci murit mooy ni ko waxee rek mooy ni mu waxee rek. jëfee ndigal jëfee ndigal. sa kemtalaay kattan sa kemtalaay kattan. bàyyi tere bàyyi tere. sa kemtalaay kattan. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. bëgg-bëggu sëriñ bi la. bëgg-bëggu sëriñ bi la. ku la xool fekk la ca. ku la xool fekk la bëggu bëggu sëriñ bi. kenn bañ la caa dégg. kon nag loolu. kon nag loolu. wax na ko. wax na ko. daana ko wax. daana ko wax. danañ koy wax. danañ koy suñu kilifa danañ koy wax. suñu kilifa dañ wax. wax nag. bu yemee ci dégg rek. te jëfee ko. moom nee na yem rek. moom nee na dégg nañ ba tàyyi. nañ ba tàyyi. xam nañ ba tàyyi. Serigne dund na. suñuy maam maam fekkee. suñuy baay fekkee. lam nekkoon nekkoon. daan ko digle daan ko digle. nettali nañu ko ba tàyyi. nettali ba tàyyi. bind na bàyyil na ko fi. na bàyyil na ko fi. yar ci ak njabootam. yar ci ak njabootam. yar ci ay sëtam. ci kon loola. di ci jàng dara weesu. di ci jàng dara weesu. xool xam roy jëfe jëfe. loo rekk ci des. murid nag. بودي مي باغا خامني واخ جي بري لك كو ديسه نيكو سيغ دام واخي اك مريتام جيخنا بوكوتول ساخ تي اك مريت نين جيف رك لن خام ديفين ديغال باي تيري لو رك لن خام لول لن ني يار تيلن ني نامبل تيلن ني ماغ تيلن ني فاتو كون نانتي غورغولو بو باخ fukki loxo. jàpp ko suñ fukki loxo. yoon waa ngi nii rek. yoon waa ngi nii rek. ku leen ci fekk. waxtu wii. xam na am ngeen pas-pas. am ngeen dogu. bëgg ngeen sëñ Touba. yéen a koy topp. yéen a ngi koy sëñ Touba nag. la ma ci waxoon rek ci ne. képp koo xam ne. yoreel nga ko bor. lebal nga ko bor. bis bu la fayee. da nga xeeb lan ko defal. kon nan góorgóorlu. nan takkaayu. nan am jom. nan dooni ngor. nan doon ay gor. fas yéene. fas yéene. lanu sëriñ bi defal. mënuñ ko koo fay. ba mun ko koo fay. mënuñu ko koo fay. mënuñu ko koo fay. waaye noonu sax ci lim bëgg rek. waaye noonu sax ci lim bëgg rek. nit moom. nit moom. loo man di seq. loo man di seq. ak moom. ak moom. te boo geesoo. te boo gisee. te bu geesoo. te bu geesoo. gis la ca la ko neex. gis la ca la ko neex. lu mu la ci lu baax dana ko dolli. lu mu la yéene woon ci lu baax dana ko dolli. kon nan sax ci taalibe. kon na sax ci taalibe. nan rafetal sunu taalibe. nan rafetal sunu taalibe. nan sellal sunu taalibe. nan sellal sunu taalibe. sax ci dàkk. góorgóorlu ci. ba jeex ci tàkk. sëñ Tuubaa kat. ku ne xam na ni. ku xam na ni. du du morom. moo gën sax ñu nu gën. moo gën sax ñu nu gën. waaye ku ne xam na ni. la boromam bëggoon. digal ko ko. da caa jeex tàkk. la ko yàlla mayoon. la ko yàlla mayoon. la ko yàlla mayoon. mu def mu def ko. lu mu ci seet. lu mu ci seet. ba xam ne. ba xam ne. lii neex na ci bakkan. lii neex na ci bakkan. mu sànni ko ngir jëmmi boromam. mu sànni ko ngir jëmmi boromam. jëndee ko ëllëgam. jëndee ko ëllëgam. kon nag yoon waa ngoogu. mënuñ ko. waaye nañ jéem rek. ba te bañ koo wàcc. buñ ko wàccul rek. buñ ko ko seen. fuñ ko seen. fuñ seen sëñ Touba. seen sëñ Touba. duñu ko séen. duñu ko séen. waaye doon ko fekk mu toog. waaye doon ko fekk mu toog. te ëllëg kat. ku yàlla wan te ku yàlla wan sëñ Touba. am nga la nga bëgg. la nga bëgg. waaye loolu nelaw du ko maye. waaye loolu nelaw du ko maye. caaxaan du ko maye. caaxaan du ko maye. fo du ko maye. fo du ko maye. fen du ko maye. ko maye. rambaaj du ko maye. ko maye. raxas sa xol. raxas sa xol. ba mu set. nga def ci yàlla. nga def ci yàlla. te yàlla rek tax. te yàlla rek nga di ko topp. di ko topp. di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. di ko jëfal. di ko loolu rek koy maye. nax la. lu dul loolu ay nax la. kon nag yal nañu yàlla dimbale. ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di ñaanal ñëpp. di jaanal ñëpp. di di kenn. sëriñ Modou wax na ko léegi. fàttewuñ bàyyi mboor. fàttewuñ bàyyi bañ tàmbalee gàmm mu mel nii ba léegi. bañ gàmm mu mel ba léegi. at mu nekk. bu ñëwee. bu ñëwee. lu ciy rafetal. lu ciy rafetal. da koy yokk waaye du ko wàññi. moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax wér. te mu yàgg ci seen ginnaaw. yàgg leen a liggéeyal. li ci des nag mooy daayira yi. fédération yi ñëpp. sëriñ bi nee na di leen sant di leen gërëm. Mm, yéen ak moom yéen a yem àtte. ngërëmul sëriñ Touba lañ bëgg. moom laa bëgg. maa ngi koy wut di ko xeñtu di ko sàkku yéen it loolu ngeen bëgg yéen ca yoonu am ko yéen koy wut di ko sàkku ci seen alal ak seenu ñaq ak seenu coono kon nag mu ngoogu rek kaay jëriñu jarte xeex jarte xuloo kon nag nañ ànd rek liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax ci la ni amee lépp luñ bëgg jërë ngeen jëf mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mi nga xam ne dara taw ko suñ mag ñii yàlla aar leen sàmm leen may leen wér ba yoon wi ñu jiite dëkk ba nga kenn ku nekk ci ñoom dëkk ba nga ne. yàlla yàggal la fa. yàlla yàggal la fa. ba nga jiite ba ña nga jiite. ba na nga ko bëggee. na nga bëggee. ci yoonu Serigne Touba wii. ñun itam. ak suñuy doom. ay su ak suñuy doom. ak suñuy rakk. fu mu di nekk. ak fu mu mën di bokk. yal na nu yàlla sàmmal sunu taalibe. musal ñu seytaane. dimbalee ñu am ndog nangul ñu sunu taalibe nangul ñu sunu taalibe aaral ñu ko suñuy bàyyi àggoon. ba fa suñuy bàyyi àggoon. suñuy maam àgg. suñuy maam àgg fa. ba ba ñu nit ñu am ko. ñu nit ñu am leen gis mukk rus. ba duñ kon nag jërë ngeen jëf. suñu na bu baax. ñii suñu xol sedd. ñii suñu xol sedd. yàlla bu yàlla bàyyi yàlla bu yàlla bàyyi kenn. yàlla sere xol ñëpp may jàmm ñëpp aar ñëpp musal ñëpp barkeel ñëpp nawet bii nu ne yal ko yàlla àggale ci jàmm te lépp bari lépp barkeel ku nekkul ci nawet. te ku nekkul ci nawet. ne ca beneen liggéey. ne ca beneen liggéey it. liggéey ba nga liggéey ne. lii ñu ci nawet ñaan ci nawet bi. ñu ngi koy ñaan te liggéey booba ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm lépp ñu def ko ngir jëmm borom bis bi kon na suñ xel dal bu baax na suñ njortu rafet bu baax yal na yàlla nangu lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke maam jaara busu ne leen amiin